sart yi tax ilimaan mat ilimaan fukk la ba jëkk mooy nay góor jigéen moom bu jiite jigéen ne moom rawante na góor te na ànd ak xelam ab dof ku mu jiite doonte sax nam jullee tegu na ci yoon wa ndax mënoon na ko laata muy dofit du tax yow moom jiite nga baaxle te it kooko dugg ci lislaam bu nit doon sol yére jullit jiite la ay ati at gannaaw ba ñu xam ne moom ko doon ab jullit ni ki waxal ko boppam ne du ma woon ab jullit kët dama daan nangam ak ki nangam bu mësaa di jiite dana aajowoo nga seet lam la jiite lépp nga baamu ko dootu mooy fii kàttan waaye muy man maanaam kay jiite day man tonki wax yi te mooy mën a kàbbar armal mën a jàng fatiha mën a wax asalaamaaleykum man tam tonki jëf yi ni ki rukkoog sujjóot ak taxaw ak yooyu yëpp waaye lu mu ci xëstali rek du mën a jiite ku ko man su fekkee dafa nuu du mën a jiite ku nuuhut su fekkee dafa amee ak wéré di ba mënta taxaw toog rek la man du mën a jiite ku mën a taxaw am na sew-sew bu nekk foofu rek bu ñu nee ku tële ab ponk mën naa jiite ka ku tële ne moom su fekkee ni moom day junj rek maanaam mënta rukkoo mënta sujjóot da koy junjal day junjal rukkoo ba da koy ñëpp rek moo sujjóot ba bu amee keneen ku mel ne moom nga xam ne moom day ñëpp mooy day junj rek rukkoo mook sujjóotam du tax kenn mën caa jiite moroom ma aji junj moom nga xam day ñëpp rukkoo ba ak sujjóot ba benn mu julli moom dopp moo tax sarabina falxaasilu annal muumi a la yusalli illa munfaridan aw ma'muman su fekkee ne dafa tëlee rukkoo mbaa sujjóot ba nga xam ne da koy junj rekk junj daa amut ab limite moo tax kuy junj rekk rukkoo ak sujjóot du mën a jiite koo xam ne day junj ne moom rawante na nag ku mën a rukkoo mbaa mën a sujjóot lu bokkut ak loolu nag ku ko tëlee da nga mën a jiite ku ko tëlee ne yow ni ki ku mënta jàng ndax dafa lu mën naa jiite ab lu ne moom ku mënta taxaw day toog mën naa jiite kuy toog ne moom yow mi u aji junj mooy koo xam ne tëlewut dëgg-dëgg rukkoo mbaa sujjóot am na lu mu ca man nga xam ne dañ koy wax ne ko da ngay sëgg ba fa nga mën a yem nga yem fa bu dee ci sujjóot ba nga xam ne moom moo gën a suufe rukkoo da ngay sëgg bu baax ba àgg fa nga mën a yem bu dee ci rukkoo ba nag nga xaw a wàññi la nga man ndax sujjóot bi gën a suufe rukkoo ba kooku mooy aji junj ndegam nag ñoom ñaar bu ñu bokkee kenn ku nekk di def loolu xëy na maamoom ma gën a mën sax ilimaan ba sëgg boobee ñuy sëgg dafañ mën a yem xëy na maamoom ma gën koo mën ilimaan ba looloo tax ñàkkee am nattuwaay bu wër a wër moo tax duñ nangu kenn ci ñoom ñaar jiite moroom ma bokk nañ sarti ilimaan kooka xam lay tax julli gaa wër ci wàllu njàng ma ak sarte yi ci des wàllu njàng mi ndax xam nañuy jànge faatiha nga xam ne dana ko njàng njàng mu wër indi sàdd yaag mbijjikaan yaag yépp dara du ca manqué xam nga nañuy jànge faatiha bu wër moom farata la saar wa cay topp sunna la moom itam mu xereñe saar wa cay topp xam nañ koy jàng bu wër sunna la wàllu fiq bi nag moom na xam lay tax julli gaa wër ak lay tax julli gaa yàqu am na nañuy wax ne su xësee xam nañuy jàppee xam nañuy jullee rekk doonte sax daa fekk boroom xam-xam mu gis na muy jàppee ak na muy jullee mu roy ca moom bu du ca bàyyi dara dara rekk dal nay doy ci gàttal daal bu ñu nee kiy jiite war naa xam àttey julli ga la gën a mat mooy lépp la aju ci julli ga la koy tax a baax ak la koy tax a yàqu yépp lay ràññee bu baax a baax teewul nag wax nañ ca jàppandal ne yonent bi daa waxoon rekk ne sallu kama ra'aytumuni usalli julli leen ni ngeen ma gis ma di ni jullee ndegam nag gisuñu yonante bi waaye am na ay boroomi xam-xam yu ko wuutu dañuy jàpp ne kon ku gis boroom xam-xam muy julli mu xam na boroom xam-xam ba jullee mu roy ca moom jullee noonu rekk dal nay doy ku mu jiite itam sa julli baax lu may nag mu defaat ca biir lu yàq julli ga amaana koo xam ne xam-xam noonu la gàtte mu def ci biir lu yàq julli ga te du ko yëg waaye moom daal ndegam na muy jullee ci zahir moom dara mangi wu ca ku mu jiite itam mu baax moo tax boroom sarabee di wax naa wa kafa ilmu kayfiyati zalika walaw lam yumayis al farda min as sunnati bi xilaafi man yaataqidu al farda sunna moom daal bu xësee xam nañuy jullee rek doy na donte xàmmewul sax lan mooy farata ak lan mooy sunna lay bonde mooy mu fekk loo xam ne farata la moom mu jàppe ko sunna lay baax daal mooy mu jàpp ne julli gi am na ay farata am na ay sunna taxul nag mën leen a ràññeele mbaa mu jàpp ne julli gi lépp ay farata la lay bon daal mooy mu fekk loo xam ne farata la moom mu jàppe ko sunna kay jiite bu ko loolu dalee nee nañ jiite ga du baax ndax day def ne bu fekkee ràññewul yooyu rek am na sew-sew yoo xam ne mën nañoo yàq julli moom du ko xam bu ko defee nag jullim yàqu yàqaale julli ña muy jiite muxtalimun day fi kuy aji gént waaye dafa jublu kuy aji kàllafe bu fekkee kañuy jiite muy maamoom muy kenn muy mbooloo kàllaf la kay jiite faaw mu nekk kàllaf ndax gone moom julli daa warul ci moom ak julleem daanaka naafila la te mag mi nag moom ak julleem farata la moo tax gone mën naa jiite moroom ma waaye bu dee julli farata moom faaw rek mu kàllaf mi mu kàllaf ne moom moo koy jiite bu ko gone jiitee rek moom mu kàllaf ma du baaxle bu dee naafila nag gone mën na caa jiite gone ne moom na mën a jiitee ci farata gone ne moom mu des nag gone jiite mu kàllaf jullit naafila mel na lu àgg ci waru koor gone mokkal alquran tax ñu di ko jiital muy jiite ay mag loolu suñ ko defee gën a yër waaye nag jekki-jekki song def ko sip nañu ko maanaam bañ kaa def moo gën waaye suñ ko defee itam na dutee julli ga wér kon ci gàttal gone bu jiitee mu kàllaf jullit farata mu kàllaf ma bu baaxle gone nag mën naa jiite gone ne moom saa yu nekk moo xam farata la moo xam naafila la walay sa ma mooman te fekk nekkutoon maamoom kay jiite ba mu doon koo xam ne julli googee njëkkoon na caa nekk maamoom ne kii boo mosoon nit muy julli nga defee ne julli bopp mu lay julli nekkete moom day tolloo la ci jumaa ji mbaa day tolloo la ci keneen ba àndeek moom itam sa julli du baax ba tey sax mën naa am nga ànd ak nit ngeen ñëw ñu raw leen ci julli ga bu ñu jógee bay fay kenn ku ne daa war a àggaleel boppam waaye bu kenn ka àndeek moroom ma ca àggale ga rek moom ma nga xam ne moo roy moo yàqule nde kam roy ca moom def ko ilimaan moom du yàqule kon nga takk foofu ne ñaar wala ñett ak lu ko bu ñu ñëwee fekk ñu raw leen ci julli ga bu ñu àggalee kenn ku ne day àggale julli boppam te kenn bañ caa roy ca moroom ma su fekkee nag ilimaan da doon jiite ba yàgg mu am ngànt am ku mu wuutal nag kookee mu wuutal moom sottiku na ilimaan ci gannaaw ba mu nekkee maa moom waaye du tee julli ga wér na ndax wuutal gaa ko taxawir ba tey koo xam ne julli woon na julli farataam ba àggal dane day baamu ak julleem ndax am nga neelul mbooloo kooko ci bopp bu mu jiite nañ ko jiite mooy ka julleegut na jiite waaye moom mi nga xam ne julli woon na daa bëgg am nga neelul mbooloo rek bu jiitee te mu jiite moom du baaxle moom dana baaxle ndax jullee bu njëkk sax baaxoon na kon nag moom ci bopp bu mu jiite ka julleegut na jiite xur na julli jumaa dañuy sart ilimaan ja nekk gor ndax jamono yi ñu amee teqale gor ak jaam jaam julli jumaa waru ko woon gor rek la waroon te nag ndegam waru ko du ca mat ilimaan sax gi itam na koo ko dëkk fa dëkkub jumaa ja mbaamu ñëw fa nar faa nekk ñeenti fan yu mat ci fa dëkkut te yéene faa sax ñeenti fan rek ba julli gi war ko mën naa jiite waaye nag bu fekkee dafa tukki si rek dëkku fa te it mënu faa toog lu mat ñeenti fan ba julli nga war ko kon du mën a jiite day bëgg a wax ñi nga xam ne buñ jiitee dana baax sax waaye daañu ko sib nga xam ne baneen gaa def moo gën dafa njëkk a tudd nag ilimaan joo xam ne ay cëram daa am bu ca dagg ci dogalu bi yàlla mel ne ab loxoom dagg mbaa benn ci baaraamam mbaa ab tànkam kooku sib nañu mu jiite ndax buy sañoon ilimaan day nekk ku mat sëkk bañ a manqué dara ba tey ilimaan ju làggi ak nu mën di laagoo rek sib nañu ak jiiteem sara bi day wax ne nag ñoom ñaar sibuñu ci kenn moo ne day siiw na ci téere ci des itam ñu wax lu mel ni li boroom téere bi wax waaye sara bi dane wama macha alayhi nazimu daif wal mu'tamadu xadamul karahati fihima ku amee góom yoo xam day nàcc ka xelli moo xam deret mbaa dëtt lay xelli mën naa amee góom mën naa amee ay taab yépp benn la ku mel noonu sib nañ muy jiite koo xam ne amewul ay taab mbaa ay góom de sax mu jiite ku mel ne moom moom sibuñu ko ku amee njokkale njokkale mooy daa am luy génn ci moom loo xam ne sobe la waaye nag ak wéradi la ba du yàqati dara ci ak julleem mbaa ci laabam niki muy jokkale njokkaleem saw wala masiw wala leneen ci yi nga xam ne daal day yàq ak laab kooku bu jiitee mu baax waaye sib nañu mu jiite ku melul ne moom maanaam koo xam ne moom amewul moomu njokkale nde sax mu jiite ku amee moomu njokkale moom sibuñu ko ku dëkk ci àll ba di topp ci jur ga nga xam ne du faral di jaxasoog nit ñi ku mel noonu topp ga mu topp ci jur ga day feeñ ci jikkoom mu nekk ku jàgg ku naqari deret ku naqaree jëf leen téel te loolu taamuñ ko ci ilimaan moo tax daañu sib mu jiite ku melul ne moom nde sax mën naa jiite ku dëkk àll ba mel ne moom ca topp ci jur ga waaye nag mu jiite ku dëkk ca taax ya di jaxasoo ba amee ak neex deret ak nooyu jikko daal loolu lañu sib moo tax mu moo tax mu teg ci walaw darasa ak donte mokkaloon na zikran alquran su dàqoon na jàng itam ndegam moom day topp ci jur gi rek ba amee woowu melo sib nañu muy jiite koo xam ne melul ne moom jamono day soppiku fii mu nekk nii ñi dëkk ci àll bi dañuy jaxasoog ñi dëkk ci taax yi bañ doon benn nga xam ne ñu bari ci waa àll bi mën nañoo gën a rafet jikko gën a nooy waa taax yi mën naa am ku nekk ca taax ya dëkku fa ab dëkkuwaayam mi ngi fii ci àll bi xam day boole jaxasoog waa taax ya di jaxasoog waa àll bi takk-takk bi daal mooy koo xam ne dafa dëkk ca àll ba du faral di gisante kenn di jaxasoog moom bay jële ci moom neex ku deret ak jëflante gu rafet ku mel ne kooku daal di jiite ku melul ne moom lañu sib ilimaani ratib mooy koo xam ne ka tabax jàkk ja wala ilimaani jullit ñi wala jullit ñi ñoo daje jiital ko mu baaxoo jiite ca jàkka joojee mbaa jumaa joojee ñu fekk nag ku ñu tàpp mbaa ku ñu dagg sàkkaraam mbaa ku ñu dagg yaari waa yàllaam ñu def ko ilimaani ratib sib nañ ko ndax day tax rek ñu di ko teg ay baat naa seen ilimaan ji nangam ak nangam ki mu ci teg mooy ab aat ku xarafutit noonu la ku xaraful koo xam ne ngant a tax maanaam ngant ko te xaraf sib na ñu def ko ilimaani ratib de bu fekkee ne ñàkk nga xaraf moom du ngant kon bu ñu ko jiitaloo ndegam la ko te xaraf ci coobareem la buñ ko jiitaloo buñ ko seereloo ba tey kuy nur nur lu jigéen ñu koy wax ngóor jigéen nga xam ne ci waxinam ak definam da ci roy jigéen ñi mbaa boog daana jëf-jëf ju ñaaw ji ca buntu suuf ba waaye walbatiku na tuub ko ku mel noonu sib na ñu def ko ilimaani raatib mu tëb tëb jiite rek moom sibuñu ko waaye nag ñu def ko ilimaan fal ko muy raatib loolu sib nañ ko koo xam ne it pas-pasu lislaamam dafa sellut ñu koy tuddee pas-pasu bidaa bu dee ahlu sunna dañoo jàpp ne pas-pasam ñaaw na rek waaye àgguñ ci nag ci jàppe ko ab yéefar ku mel ne kooku sib nañ ñu def ko ilimaani raatib ku mel noonu sib nañ ñu def ko ilimaani raatib ku ñu umpale mbiram mooy xamuñu ku maandu la xamuñu ku kàccoore la sib nañ ñu def ko ilimaani raatib ilimaan joo xam ne ña muy jiite bëgguñu ak njiiteem te la tax ñu bañ ak njiiteem mooy lu aju ci wàllu diine ni ki dañoo gis moom muy ab jëwkat mbaa mu di rambaajkat mbaa mu di ku bari la wax lu amut te di ko tey mbaa muy ku ñaawu làmmiñ tax na ñu sib ak njiiteem kooku la gën mooy na daal di bàyyi jiite ga ndegam daal mbooloo mi sib nañ ak njiiteem te lee tax na daal di bàyyi bu ñu siboon nag ak jiiteem ci kaw rek ñàkk déggoo ci àdduna ni ki dañoo mës a xuloog moom ci alal mbaalu ko nur rek loola moom du ko tee mën a jiite suñu bañee jiite itam du tee rek na wéy ci jiite ga bu ko loola tax a bàyyi ab jaam itam ñu koy def ilimaani raatib ci jullit farata wala jullit sunna jullit sunna mooy lu mel ne jullit korite mbaa tabaski ñu fekk ab jaam ñu ko cay def ilimaani raatib sib nañu ko daa fekk nag booba góor ak jaam amoon teqale léegi nag amatut li tax mu ne laa fi jumhati nag mooy jullit jumaa moom dafa warul jaam ndegam waru ko nag mënu caa jiite moo tax mu ne farata ju bokkut ak jumaa ñu fekk ab jaam ñu ko cay def ilimaani raatib baa lu mel ni sunna ni ki julli korite ba tabaski daal sib nañ ko yu bari ci wax fii la tax ñu sib ñu def ko koraatib mooy rek nit ñi dañ dul téye seeni làmmiñ dañu tàmbalee wax ca kooka bu dee ka ñu tàpp ñu wax ni seen ilimaan dañ koo tàpp mbaa dañoo dagg ab sawukaayam mbaa ay waa yàllaam mbaa ñu naa seen ilimaan ji xarafut mbaa ngóor jigéen la mbaa nangam ak nangam yu bari ci yii loolaa tax ñu sib ñu def kenn ci ñooñu muy ilimaani ratib daa wax ci ñaari bayit yi ñi nga xam ne mën naam nga foog ne dañuy sib seenu jiite te fekk na sibuñu ko kam njëkk wax mooy koo xam ne ab sawkaayam dafa tuuti ba mënta jote ak jigéen kooku daa xaw nuru jigéen kon te wax ne jigéen moom du jiite waaye nag moon la ne la kooku kat mën naa jiite dara nekku ca ba tey koo xam ne bokkunu gis-gis ci fiq mel ne nga nekk ci yoonu Malik fekk ku nekk ci meneen ngir ni ki Shafi'i yi mu jiitale mbaa nga jiite ko loola dara nekku ca gumba itam jiite dara nekku ca ku dotam nga xam ne araf yi fañ leen di waxe ci gémmiñ gi mbaa ci làmmiñ wi mënu ko waxe noona ndax dotam mu jiite wàññiwul dara ku defoon luñ koy géttale maanaam ku defoon luñ koy cawe ci yoon ni ki mu naanoon sàngara mbaa mu njaaloo woon te rey waru ca dóor rek moo ca waroon ñu def ko la ca war ba noppi gannaaw ba itam mu tuub bañ xam ne moom mi tuub na kooku mën naa jiite dara nekku ca ku yàlla teg ngaana waaye ngaana ga amul xet guy lor kenn te it du wàll kenn boole ci mu jiite wàññiwul dara su fekkee ne nag ngaana ga wéragut nga xam ne mën naa wàlle kon dañ koy ber dañoo jëlale buy ñëw ci mbooloo muy jiite waaye dañ koy ber sax mu faju bu wér door mën a jaxasoog doomi aadama yi ñii moom si bu ñu seenug jiite si bu ñu ku leen def ilimaani raatib am na yeent julli yoo xam ne tey jiite julli ga na yéene jiite ga ndaxam sax nit daanaka lu muy def dana ko yéene nga xam ne buñ ko newoon bul yéene sax na muy bañ a yéenee dana ko jaaxal waaye daal yent julli yi nga xam ne caa sart mbooloo dañuy sart ilimaan ji jiite mu dawal xelam ci ne moom kat mi ngi jiite mbooloo mi julli gii ka ci jëkk mooy bu ilimaan amee ngant wutal kenn ci ñam doon jiite kon kooko daa soppiku ilimaan te fekk mu nekkan ma'muum kon nag bëgg nañ mu teewlu ci xolam yéene mu bàyyi xelam ci ne bàyyi ko na ci doon maamuum walbatiku doon ilimaan nga xam ne yéene ga mu yéene jiite ga mooy ràññeele lam nekkoon ak li mu walbatiku doon ko waaye moom nag bu yéenewul jiite ga itam xelam demu ca du tee mbooloo ma seen julli baax ndax mbooloo ma buñ defoon ay kenn kenn ku ne julli sa julli bopp itam du ko tee baax bi ci topp mooy jullik ragal ar risala jàngale woon na nañ koy defee ilimaan ja koy jiite na yéene jiite ga ba ca topp mooy jullik boole buñ dee boole timis ak gee dana wax ca kanam lay indi boole ga mbooloo mépp day war ci ñoom timis ma njëkk buñ koy julli rek daal di yéene boole gi xaat maanaam daal di bàyyi seen xel ne dañoo yéenee julli timis teg ca gee fa saasa saasa te fekk na gee waxtoom jotawut yéene jooju mbooloo mépp lay war ca ba ñuy taxawal julli timis ga maanaam ca ba ñuy tàmbali daal julli timis ga ilimaan jey jiite booleeg yaar julli yooye nag war naa teewlu yéene jiite ga su fekkee ne yéenewul jiite ga timis ja dana wér waaye jëmmi geega ci boppam moom du wér bi ci mujj nag mooy jullit jumaa jullit jumaa dañ caa sartu mbooloo kon nag ilimaan ja koy jiite na yéene jiite ga moom nag dañ koo xaw a diisal wax ne bu fekkee yéenewul jiite ga julleem du baax ñam doon jiite itam seen julli du baax ndax sart gañ sart mbooloo ci julli juma ne mënu caa ñàkk waaye ñu mën a fàtte rek ne nit daal moom bu ànd ak sagoom daanaka lu muy def rek dana ca ànd ak yéene nga xam ne ku nekk woon sax defal te bul yéene du ko man